Aïtien, nous continuons ITV avec Dakar Instant ginnaaw bi nga xamante nañu ki nga maître Abdoulaye Wade dañuy nous ñi nga ay militant ñu daal di joxe seen impression gannaaw honorable député maire euh, maire Waré ma bàyyi mu daal di Dakar Instant maman maa ngi lay nuyu. di am mbégte moo xam ne depuis bi Ablaye Wade wàccee ci réew meeg léegi boo gisee sénégalais yi sax seen yaram dafa naay yi parce que sénégalais yi ñu ngi doog di sentir ne campagne électorale am na ci réew mi parce que dafa ne woon nëmm rek waaye bi président dikkee xale bës paawu bës bi dikk xaritu xale yu jigéen ñi ñi bëgg a wujjeeg Viviane te faalewu leen ñëpp xam nañ ne Ablaye Wade dikk na. donc moom ku ko xam ne du koy changer décision xaw ma nag ku ko xamul mais ku ko xam xam ne lu mu wax da koy màtt mu dagg ngi koy déglu. nek ci gannaawam fas ko accompagner nak mais seulement dama am rek vous m'avez donné l'occasion d'ailleurs dama am tout rek lu bëgg a ay sénégalais parce que dégg na ñuy wax naan Khalidou Niass ci PDS dem na ah, nu mu tuddati euh, Charles Mendy ci PDS dem na ça c'est des erreurs parce que ils nous ont quittés depuis la notre chute du pouvoir bi ñaké réew mi ci lañu dem ci Pape Diop. biñ bàyyee Pape Diop dem toppi Agibou Soumaré mais Agibou Soumaré kañ ko ànd ak moom candidat mooy sa candidat donc waa PDS ak Guédiawaye ña fa toogoon di déglu ñu ngi toog ba tey di déglu président Abdoulaye Wade donc loolu boobu éclaircissement laa bëggoon a def ma wax ne Abdoulaye waad li mu wax mag la wolof Njaay dafa wax ne mag dina yéeg te dana tëdd ci ron lal gis lu sore sore loo xam ne kii yéeg ci garab gisu ko c'est-à-dire moom limu mu décortiqué ci càcc gi gars yi lal ba Macky war a génn premier tour man daf ma jaaxal dama ki ma deel dama ko ne waaw président Wade fan la xamee yi chiffre ak nan la amee yi document donc mag la dal. mag la géré na le pays pendant 12 ans il a opposé pendant 27 ans plus les 7 ans yi passé donc moom xam na fan lay teg tànkam donc may appelé sénégalais yi ñu jàpp Abdoulaye Wade tey ñaan yàlla nag yàlla may ko fan wu gudd di ñaan yàlla yàlla may ko wér parce que sunu wéttal la sunu waxtandoo la sunu xarit la tey it ku ñuy teg ci yoon la loolu daal laa mën di ko wax di féliciter tout les femmes toutes les femmes du Parti démocratique sénégalais en tant que leur responsable national chargé des femmes et de féliciter aussi toutes les femmes du front en tant que présidente nationale des femmes du front de la résistance du Sénégal. di leen aussi yéen journalistes ici parce que c'est grâce à vous que nos informations comme comme du lait sur le feu ñu di leen ñaanal seen yëfi avons nag ndax itam xalé yi dang koy ñaanal gudd fan ñaanal ko wër ñaanal ko nak yëfi bopam ba yéen ngeen am seen yëfi bop ba ni ngeen nekké am fu ngeen bokk yéen am ñu bokk ci yéen ndax ku bañ ko la jiite kenn du la jiite maa ngi leen di kalaame yàlla yonent bi sëñ sama sëriñ di leen ñaanal jàmm di ñaanal xale beuse xale beuse biñ ñu génn ci kursu bi wax ji wax ji xale beuse ak Khalifa Sall man xaw ma lu tax la président Macky Sall ragal kaa la lettre K bañ na ko baw du dem Kaffrine mbaa bu fa rombe day gëmm du dem Koungheul du dem Kaolack mba fu ci romb day gëmm parce que ñaari waalo waalo jël nañ ko audit privé moom moom xaw ma lan la daal waaye waalo waalo yi daal ba ca jokkul ma ji wàdd ak bi ci euh, gànkel daal jaaxal nañ président Macky donc yal na yàlla def jàmm ci réew mi parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar kon yal na yàlla def jàmm ci réew mi ah élection nag nu ngi xaar rek nu ngi xaar di déglu. di déglu sunu kilifa di déglu sunu baay di déglu sunu maam di déglu ki ñu yàggal te duñ ko ba nag ba mukk dara jaraluñ nag bàyyi Ablaye Wade ku yor say milliards jëlal ku yor say kër jëlal comme ni mu ko waxee nun fi ñu toog ñu fi toog di xorom sunu café rek nun amuñu kenn ku dul Ablaye Wade fas yéene ko wéttal ba fu ko yàlla yemale ñu yemale ko fa. depuis 2017 ñun waa PDS dañu ne jàpp nañu ne que Macky Sall dafa nar a sàcc ndax ni mu organiser référendum bi ni mu organiser législative yi loolu dafa dafa tey xel olof moo ko wax ku sa xel tey nga wàcc ndegam non la nar a demee dafa nar sàcc te kenn mënu ci dara ñun duñ ci bok dañuy taxaw dañ ci opposé wu dañuy wax sénégalais yi nañu jóg nek ben parce que élection yi sénégalais yi ñoo def taxaw ne élection du fi am parce que élection sàcc dañ ko dul nangu damay bëgg wax dara la ñu 93 ñu def élection Abdou Diouf gagné ñu ñëw 2000 def élection Ablaye wad gagné ñu ñëw 2012 def élection Macky Sall gagné té kenn ku ci Abdou Diouf dafa fait ne Ablaye Wade moko gagné Ablaye Wade Macky Sall nous gagné ñu fal ñetti président ñaar ñaar ñu folli téléphone félicité ki gagné Macky Sall loolu la dindi mani loolu kenn mënul table ne li fal ñetti président ñaari président loolu lu la démocratie bal kon loolu lu baax la loolu la Macky Sall dindi ni mu ko dindi moo tax ñu ne ñun ndegam Macky Sall dindi na li baax li fi nekkoon li dañu ñu nangu mu organiser ay élections ñu ngi koy wax ñetti at ngi ñu ngi koy wax donc duñ ko nangu dañu du organiser stratégie bi lu yomb la dañ ne ñetti anam la bi jiitu fii ba ñu ne ëllëg la élection yi. président Wade dafa ne nit nañu génn màbb ci mbedd mi fees mbedd mi wane seen naqar ak wane seen doole ne du ñu nangu Macky Sall organiser élection yoo xam bi ci càcc la yu wéeru loolu la ñuy def ba le 23. le 24 bésu election bi nit ñi noonu ñu jóge woon noonu ñu amee woon fayda nañu am googu fayda ba élection du fi am président dafa ne lépp nag ni ñu ko wax ci devant le khalife général de Mouride ñëpp di ko dégg mu ne moom jàmm la woote waaye dafa wax ne jàmm ku bëgg jàmm ak jàmm bu àdduna amee ba léegi jàmm ak dëgg ñooy ànd. ñoom ñaar ñooy ànd fu fu dëgg dëddu jàmm dëgg dëddu fa fu dëgg am jàmm am fa waaye teewul jàmm lay woote pour dëgg am ki fi su fi fitna amee ki indi fitna mooy ki fi indi ku fi jëlee dëdd dëgg su fi dëgg dëddoo ñi ko fi indi ñoo fi indi fitna loolu mu ne bés ba na sénégalais yëpp jóg taxaw ci ak jàmm ci salaam ci nuñ ko xamee ak nuñ ko suñ ko jàngalee ñu taxaw ne lii élection du fi am la ca des ñetteelu fànn bi

Euh, nek aussi le coordinateur du parti démocratique Sénégal dans le département de Mbaké. waaw. sëñ bi ginaaw déglu nañ li nga xamantene ne réunion bi comité directeur bu PDS doon tenir tay fi ci hôtel Terrou-Bi ñu bëggono xam rek yeen jangat mo ci mëna a ko ginaaw bi ñu dégloo góor gi ba nopi. waaw jangat yi ci mëna joggé rek moy lañu waxon rek xam nga bi nga xamantene élection 2017 yi jall na amna na benn livre blanc bu président Abdoulaye Wade bindoon waxon ci né tant que Macky Sall mi ngi organiser ay élection diko organiser ni ñun PDS du duñ ci bokk li nu fas yéene élection du fi am rek comme ni ñu ko waxee woon suñu bëgg-bëgg daal mooy fexe ba def tout pour que élection du mën a am ndax gis nañu ne élection yi bu continuer président Macky Sall euh, sàcc na élection yi ba pare comme sàcc na ko ba pare soxlaatul ñuy dem élection ci anam yi ndax bu ñu ci anam yi élection du mën a baax moo tax nun ñu jóg taxaw comité directeur moo waral président Wade woote ñu taxaw jàkkaarloo Macky Sall pour que élection bañ fi am. waaw sëñ bi Mbacke ñu bëggoon a jàpp rek ci nu mu gën a gàttee rek ndax jàpp ne fomm élection yi nga xamante ne daanaka def nañ ci ay xaalis bu takku est-ce que tey ji fomm ko du yee fitna ci biir Sénégal. non du yee fitna ndax gis nañu ne élection yi nii bu continuer ci fitna rek la jëm ndax jaar na ci yoon bi. ndax euh, tey jii bis boo xamee li mu bëgg def na ko muy programme ay élection ne moom gagné na bu boobaa jàpp naa lu yées loolu mooy am ba tax na kon moom mu arrêté woon ñu dàq élection yi waxtaanaat am ñu ubbiwaat élection yi ñi war a bokk-bokk jàpp naa loolu mooy dëgg te loolu mooy suñu bëgg-bëgg loolu mooy suñu combat incha allah you.